kadi kadi Caetano Sénégal, représentant officiel des marques automobiles Renault, Hyundai, Ford, Isuzu, Bike, Jetour et Mahindra. chef Aïda ñamal seet eh du poiton de te xoolal xoolal lii mooy poiton boo dafa mën a pas Ndiaye fu mu toog day wax man de par force si ñu combat budul bëri bon, yow bombal bombal bombal bombal Retrouvez votre série Belle oh. de Baye Moussé chaque lundi et jeudi sur votre chaîne YouTube Marodi TV. Trois jours au pied du maître avec la communauté Jeune Espérance. Rendez-vous les 8, 9 et 10 mars à la salle polyvalente de Liberté 6. teraanga ak Punch la fekk baax seetaan leen seen programme ak boisson Punch yi di teral gan yi ak di seetal xol ak Punch rek Teranga, fii la fekk baax. Eau Royale buuru ndox yi. Gold une nouvelle vision de la bijouterie. Chez Umbilico, votre confort, notre satisfaction, votre bien-être, notre credo. Umbilico, Liberté 1, face Stadium Marius Ndiaye. 77 519 1804 ou le 77 762 37 47. Umbilico, the best. Pour que chaque trajet soit une victoire, rendez-vous dans les stations-service Orix. Amoureux du sport, du cinéma et des séries, vivez toutes vos passions sur Canal en février. Réabonnez-vous ou rendez-vous dans vos points de vente. Vivita, un relooking pour votre personnalité. Vivita by Cosmakeup. Salut Choose 221, votre partenaire numéro 1 des chaussures. Livraison partout dans le monde.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 Rejoignez-nous sur la chaîne YouTube Marodi TV International et découvrez l'univers de nos séries francophones avec des histoires captivantes et des personnages inoubliables. Marodi, inspiré par vos émotions. MT Couture, Mam Tcherno Couture, des costumes africains sur mesure avec des finitions exceptionnelles. MK Wellness and Beauty, votre nouveau concept store. Parfumerie, maquillage, soins. Venez retrouver tous vos produits de beauté et de bien-être tout près de chez vous. Salima, Iba Couture, M60, Divine Lingerie, Ruby, l'horlogerie sénégalaise, Jiggy Fashion, Ara, Falcon Institute, by Soja Business. téyel fi nga téye ma téye fi nga téye yow aussi bul ma forcer di ma laaj sama bop ah Sidi Sidi li lan la ni Sidi yow lay waxal de indi ma fi ba pare nga ne nem ni lan la. jooju Mbow. allo di tax. Sidi pare na de ban heure ngay exé ah di tax di ma balde de sambi dama xaw ko ngi liggéey loolu sama nek hmm. mais yow Sidi ban problème nga am ak man. man ma solu ba pare taxaw di la xaar nga ne doo ay doo ñëw. di tax wuyu ma bu ma ñëwee lépp naa ñëw bi ba pare di la xaar nga ne doo ñëw boo amee ak man jafe-jafe sax xanaa nga génnee ma yóbbu ma resto loolu kese danga ma ciy tayale. Dit daf ma ko

heureusement que n'était pas de, vrais jumeaux hein. donc actuellement Ben et on fera le nécessaire pour que actuellement vous êtes à 4 mois de grossesse 4 mois de 4 mois de grossesse 4 mois de sa jooy lan ngay jooy. baal ma. baal di ma baalu si loo deful. baal ma ak yàlla. jooju mbow borom bi moo xam li tax mu def lii mooy borom bàkkan bi ni tax mu yóbbuwaat benn bi xam na ko. benn bi fi des nañ ko téye te ànd ak nangu. sa débbal mu téye ma ko. gis nga affaire yi mënoon naa gën a métti boo fi ëmboon ñaari seex dina doon loo xam ni musta am seetu baabel dëgg la waaye naan sant xam ni yàlla lu mu def rek noonu la. benn bi mu fi bàyyi nan def li ma la wax nan si jaamu yàlla sant si ba mu xam ni ñun nangu nan dogal bi ñu ma kott ma yi kott ma ah, na bàyyil sa jooy yi lii ngay def ni arrangé wul sunu doom bi de ah waxtaanoon tey suba danga ko fàtte ak lu mënti xew dinañ nangu dogal dinañ jàppalante je pense que c'est le moment actuellement hmm? Khalil, c'est dur. Je sais. Je sais. Tout mal le jour. Hein.

xale yoo xamante ne nii yàkkamtiwuñ ba taseeg yaay ju mel ni yow lii nag moom dama jàpp ni rek natt bu ñu teg la te natt soo bëggee sa borom teggil la ko foog nga nangu ko. Hmm? sama maam moo ma doon wax ne sa papa Khalil mi ngi fi ak jabaram. ñëw na bu yàgg. ah kon man maa koy dóoree. kon mu ngi si Oke. Okay. Thank you, merci, waay Oke, okay, merci. Bambi. wuyul sëñ bi. ah déedéet sëñ bi yow li nga bëgg a def nii lan lan mooy lan. def leen tànk di ngeen gis sëñ bi. Waalaikumsalam. salaam. waaw. ziar naa la. ñu ngi am jàmm bu am hmm. Khalil Thiam. waaw yaa ngi foofu ba tey. mu ngi Sénégal. dafa jot ma sama kër. jëli lima mom moom. la nag aw ma woon benn yittey ma Khalil dama mu bëgg ma te mom jaral na maa dellu. Ah, newoon na day <laughs> sama sama liggéey képp ku ma ko jox bu ko songoo wala mu naan ko. toppane xaj. Hmm. loolu weranteetu ko sax. mais fi mu nekk nii lenn laa soxla. moom ak bés bu ma yeggee dinaa ko lijjanti lenn laa soxla mooy sa kàttan yépp nga defal ma ci sama Xalil laata ngay dem jaar fi soo fekkul di nga fekk soo bëkk ne dina am lu mu la jox. Hadi bon bi ça va bien. yaay mi ngi la doon laajte de. Euh, bon boobu ñëw naa ba ba sumeeku gisuma la ma ne naa ñëw xool la fi lu di fi heure bi. lu may def ngay laaj. damaa gëj a gis ay raxas tuuti ko dëgg xanaa ba may doog a ñëw. ama jàppale la. defal ma li ma la sant wala mu ñëw defal ko sama bopp sant ma la leneen non suupa rek suupa ñu may ma la nga doon sama soxna ma boole leen ñu wax bébé yëpp doon seen baay nag tey baax na waa si kanam naa la waa ok papa looy seet xaaral nga am ay équation. monsieur <laughs> yow comprendre dara. tata bomb bi si gaale bi rek doy na équation. si. daf si baax sax nag. ndax yàlla nga nekk nit. dugg néegu góor xam la mu saf. ñu arrêté conneries damay toj seen lu bon yéen ñëpp ah. bien bon nag. imbécile. man ngay waxee nii. man ngay wax naa may néegu góor néegu jigéen. waa petit Ensa, viens au moins toi tu es intelligent viens on joue à la carte Pape ne nga pas le de mais jouer carte dafa une carte réaliste. naar carte la rek jeu de carte kenn tegul dara tu as rek man ah ok je m'excuse donc ah, man ak yow far. dafa ak. yow man yeen do wote di wa yow dal xam nga ni nak ngentel taw mom te te sama do du yom wa bayyi nak sa jikko lebu gi nga yor nak wa ah alab nak <laughs> Eh, da nga na bari xexuma ku lowuma alab ñew ci jam rek ap ko ambiance wa ba wa ma ngi couper wa couper na nagu war a couper man maa war a couper jëlal. loo leen di def laa bëgg a xam sax yéen. nañuy carte. bokk naa. Nabou commencé nañ ba pare munoo bokk. Eh, force su laay bokk nag. yow Ibnu lan la lu tax ba duma bokk yow kii nga xam ne xel mi neexul examen eh, dama koy jàppale. may bokk de. yow waxuma loolu de mais Pape Ibnu instant yi waajtaay bi nan nga si nekkee nii xew mi nan nga koy waajalee. pirre boo koy dékk waaye xale koy daan di mm. bambi waa ibnu noo war a def ak nag ibnu caamu summeeku war a taxaw ci digg are war a léewtoo nga wuti ko tàkk waa laa la war a tuddee sax salaamaaleykum maaleykum salaam ah. eh, eh eh yow fan nga yendu tey boo yëgee xam ko waaw wax nga dëgg ak sa coquette yooyu <laughs> naan ma boo yëgee xam ko voilà Nabo il nga war régler un mari prématuré. <laughs> waaw lui on connaît il est prématuré il a deux enfants mais toi on ne sait pas encore. moi-même j'ai un enfant. waaw jur naa lu mën a jur de. titulaire. Eh, ñàkk fayda waa Ibou Diamba verse nga. nga sa ndaw. Tidiane xam nga nelaw ban fonction la am si dundu doomu aadama. xam naa ni pauvre du nelaw mais bon yàqul dara dis-moi. yéen a fajar doyatu la li da may indi fii déjà la lañ fiy def. noo noppee rek di nga xam rek. fan nga taxaw ñëw nga yëg si gaal bi. yaa ndox bi dafa seet de xalaatuma yëg si gaal bi gisu ko lu ma fiy tax a yëg mais faama sax mënu si dara ah. oui yow xaaral boobu fekk na parce que maa ngi lay fay ah si noo xam ne daa nañ ko def jaar. wala nga yéeg si gaal gi nga naan ma ay mère Fama. da nga koy avancer ñu gën a seet boo man si gaal gi si géej gi laa dëkk nga naan ma ay mère Fama ñëwal fii dara du la dal. taxawal naa naa ko rek yéegal. waaye yéegal ma yàpp sa xaw naa dal de. démb danga doon nelaw di yuuxu di gént rek. waaw. waxoo dara da doon gént di jooy rek mais est-ce que doo mën a jël rendez-vous ak fii nga toll nii. ah mais pour am koo xamante ni dina mën a suivre. xool ak jamono bi nga toll loolu moo tax. Sadia man soxlawuma kenn ku ma suivre yow laa soxla ci sama wet bul ma bàyyi. lépp lu ma yàlla defal yow yaay ki ci gën man nit lépp li ma yàlla defal yaa ma ci gënal dama bëgg ñëw dem egg place bëgg naa it nga ñaanal fépp foo jublu yàlla na fa yow yàlla jublu di sama doom ma jur la fi nga nekk mu lëndëm loolu maa ngi ñaan yàlla mu leeral ko sàmm la ba nga ñëw fekk ma fi ndax yow rek laay xar incha allah teg si it sàmmaale sama reenu xol sama princesse ki ma tànnal sama bopp

Donc autant te prêter au jeu. Ah. nit des fois ay xalaat yu bëri bokk na si li ko gën sonal des pensées qui s'imposent dans ton esprit dans le désordre jaxase sa xel bi bi ma maam juga waxee que naga nekk di éviter kër gi ak nit yi fi nekk je me suis dit dans ma ou à ay xalaat yu bari rek moo la sonal bëgg nekk place su nit yi nii kut ko kut xam nga li ñuy xalaat ci yow tey nag dama la indi fii pour nga napp. peut-être que après ça di nga xam sagesse bi nekk si ginnaaw. xel mooy nit na bàyyi na xel lépp lu yàlla bind ak li nu wër dee ci bàyyi sam xel da xool yàlla.

est-ce que Paris ne peut reprendre ta vie à moi jóg bu ñaaw boobu mais c'est normal ku la liggéey ba nga takk ko yàq sa mariage rakk war na mën a dóor bu jëm waaw Cheikh est-ce que lii nga bëgg a def nii continuer est-ce que jotul tamit pour nga génn affronter doomu aadama yi loolu yow yaa siy jiitu ba képp ku la mën a jàppale fekk wala da yaakaar ni amatul ñu la bëgg wala amatul kenn kuy yaakaar si yow loolu bis boo ko foogee rek yaa ngi si jumte bu rëy. ñii ngay wax nii boo leen gisee nga wan ma leen. salaamaaleykum papa. waaye salaam pare naa maa ngi lay xaar ci dugg si kaay. tey soxlaawuma la place ba n'est-ce pas da nga bëgg jàng bitim réew. waaw loolu laa bëgg. waaw ah, kon da ngay toog nga waxtaan seeg sa yaay dégg nga. Votre série revient après la pub. Kadi dal mo bëri doole kadi saf sell te wóor. Teranga, ak ponche la fek baax seetaan leen seen programme ak boisson ponche yi di teral ak di dal xol ak ponche rek teranga, fi la fekk baax. Caetano Sénégal, représentant officiel des marques automobiles Renault, Hyundai, Ford, Isuzu, Bike, Jetour et Mahindra. Week-end international d'évangélisation des hommes avec la communauté Jeune Espérance. Hommes de tout horizon, rendez-vous les 16 et 17 mars à partir de 15h au Bois des Manguiers de Kermoussa.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 am qualité c'est garanti Salut Choose 221, votre partenaire numéro 1 des chaussures. Livraison partout dans le monde. La rat traiteur. Rejoignez-nous sur la chaîne YouTube Marodi TV International et découvrez l'univers de nos séries francophones avec des histoires captivantes et des personnages inoubliables. Marodi, inspiré par vos émotions. Baby. Qu'est-ce qu'on dit des traditions Faites pour être respecté. Voilà. Ça change pas. OK Mais ben, Sophie nekké di ma defal qui da nga à tardé direct pour ton travail et tchao T'en veux pas pour moi. J'ai annulé ma journée. Je vais m'occuper de ma fille aujourd'hui. Allez, je. Je vais, je vais bien. Mmh. Je. Mmh. Très bien, mmh. même. Hier, tu es passé par toutes les émotions. Mais moi, bien, moi, pas aussi Mais tu risques de t'absenter pour. <laughs> pour toi, pour toi, ça va Ma vie, ma raison d'être. Écoute. Ce soir-là, il n'y a pas la terre entière, je te dis. D'accord D'accord. Voilà. Maintenant, pour commencer, ignorez-vous, ignorez-vous. C'est ta mère. Ah, ok. Allô Légni waaye mënul xaar ba waaw baax na ok maa ngi ñëw mais ku la bàyyi yow tamit ngay gàntu maman mais je peux pas te laisser seule ici seul nga wax de tu fàtte ne ëttu babel la ñu nekk mos nga gis kër gu ko gën a xamb parce que. tu essaies de faire la forte avec moi oui ma C'est yii nii danga koy def ak keneen quand tu es avec moi lâche-toi tu vois bàyyeekul defal lu la neex façon je vais comprendre d'accord. d'accord je t'aime. je t'aime aussi. Bom, Maíra me prepara, Comme am naa autorisation pour tey ma xool mère lu may doyee d'accord. Oh, chérie. надуйся. Да. On n'a pas eu le temps de se voir et de se parler depuis Takusan. Leila Akfa, on me lève. Mais j'appelle, tu as tout mon soutien, sister. Ok? Merci, Khalil. mon Genini. Mais Fa aussi, elle se sent pas bien du tout. Elle traverse des moments de tristesse actuellement, tout comme toi. donc ngeen vous wéttalante ngeen waxtaan ku nekk a si Fala dal. Allez. Monsieur, ça va Oui, ça va, tranquille et toi Ça faisait un moment. On a gagné un inscrit. Ouais, demain, mais on clôturé. Ah bon Pourtant, je viens à peine d'inscrire à tout. Monsieur, Ah a les plaintes là bon moment, il est. Attends, attends. Vu que ça faisait un moment, on ne s'est pas vu. Nous sommes venus dans le top cadre, Wartan. yow da nga focus Canada ak inscrire et école fi j'avoue que c'est chaud mais dina xool lu ma mën wax ak sam papa sûrement moi na jouer ci ay relation j'apprécie l'aide mais dama bëgg jéngul sama bop après tout tu n'as jamais accepté mes aides encore moins buñ ñu won en couple. Quoi le monde façon yow da nga correct avec moi..! mais par contre man nous utiliser Et la manipuler l'histoire de l'IPN et tout Regarde-moi, s'il te plaît. Tu es une femme exceptionnelle. te bul pas mukk nit di comme le contraire. Car tes erreurs passées te servent d'expérience aujourd'hui. Je ngi lay xool te lenn rek changement de ça se voit et pour te rassurer plutôt pour ton information Tu n'as jamais été une bonne manipulatrice car j'ai toujours su que tu m'avais jamais aimé comme moi ni la juste un conseil gis nga def ak lu mu xanaa kay moom lay neex muy doddoflu rek ngir bëgg a dab c'est vrai qu'on est plus ensemble mais sache que je serai toujours là pour toi au cas où tu as besoin de moi. Ousseynou merci beaucoup man mom xam naa ne yaa ma gën. loolu dafa leer amin mel ni géej gi am na ndox rek. Nam ya. waaye ku la bàyyi nga engager foot mi yeb. Ay ah, ya, ay li dara sama wara fly def rek ah Leila cham de musuma defal li. bu ko ko jappé xam ñun dëkk ba yitu dara si ñun Bambi foto tollu ci li la papa Ndiougo waxoon ah xalaat na ci day Ouais. Da mel ni am na ko fa bi sax xaaral ma ñëw. yow xana dafa am fo jaddu ci suba ba tay ma ngi tok dila xaar. ya agsi naa léegi. tey nag li lay wax sama yitte xanga lan la bëgg seut la bëgg. buso Insa khadi Omar duñu sey seut ah kañ samay sët lañ kay waaye ñoom say doomu baayam ñoo leen jur Omar mi nga xam ne bërki démb la judd démb la doomam juddu yow mii di sama doom nag dama bëgg nga indil ma sama sët boo xamante ni ci sa gaño gii lay fàqee ko bambi so paree nga may ñu ñu waxtaan. ah d'accord may xelal xalé rek tam. su féké tane Fat Bintou Ndiaye dafa am problème am do wala mu am benn problème rek ma koy wax ma jëm ci ut solution seeti ma mën wala fajkat yi ñu jëm ko jàppale mu am doom bu fekkee foofu antuwul tamit beneen solution am na mooy ma takkal la ñaareel waaw ñàkk am doom moom tasul benn sëy ndax nit ñaa ngi fii di sëy di góorgóorlu te yàlla mayu leen njaboot terewul ña nga continuer seen sëy di sëy yaay problème bi bu dee si man la xali ci am bu ma fonto problème bi nek ci yow góor tigi nga da nga bëgg wax góor du jaasit xaw duñ koy waxate sax yaay jigen bu tay amul dom problème bi mën na nek a ci mom kasse mën na aussi ci partenaire am su dé si man la da fay dem seeti leneen wala da fay tok mu ñëlma xamna bu baax li ngay wax problème bi mën naa ci ku góor gi comme mën naa ci ku jigen gi mi yow mii ben demba caam deureum jotu la lu wokul deureum wokula yaangi en bonne santé ha nga lu bëgg nga indil ma seut yaay man luma mënul may sama bopp man na la la koy xagne yow xarica man ngay tontu li du ma sa morom la la wax dégg li wax bu baax sa téléphone mi ngi sonné allô waaw sang bi waaw baax na waaw léegi rek dangaa yebaate danga toog xaar ñu ñu pare nga yóbbu ñu bambi bambi njaay na nga préparé wu nga solu defaru sang bi nee na ñu ñëw fa dégg ah bibi ji gona ak dem dem dem dubai rek tax na nga bayyi sa mak ah xew mi yegsi na ba pare de turondoo na bu géey xam nga ni lolou ndawul way yow dal acte de présence c'est pas grave bo mënul ñew rek yonel waw ma ngi xaar sa loxo de wa baxna yow dal ken du len wo ba jot len yaa ma bel dal ak na dem sa tane ah wa xew mi daal laa leen doon wax dafa yegg ba pare te deguma len fenn sëkkatoo len defo len action at ah, lu toll ni turandoo na bugge munu ñew dal graw garaawul loxo rek wa ba ok jank ma ngi xaar nak sa ndawtal yow nak ma wara jox lu duum mu ñew bokk caleçon hein wa jojo du yow lay waxal yow de sa jafte bi mom da yobu sa Yaudah daal kita da ngaa jin jin jinne ju ñu jommal rek wala da nga bëgg boog indi bu góor di ko indi bu jantal ngay ya, indi bu fi indi nag ku mel ni eh, instant de nooy nepp ba mel ni banana nga góore rek indi bu góore. Malikum salam. Eh, docteur si Wa docteur si no def. na ma def sawa. va. Iya, ci ya. jam Jojo docteur si xana da nga ñew tay pour consulter si pa bi suukar si. non tay nak leila la ñew set nag. Layla man princesse Thiam. Oh, eh, ah bon docteur ya deg nak yow ya mëna a faj deug deug dëgg yaa ay ci diabète ay ci malaise même jigen ju am malheur ya ay ci moom.

rasulullahi boo diggalee sa bopp yàgg yaay Maria leen ngeen mariage balaa ibnu jaam docteur Kaay mane Kaay dégg li ma da ngay jàpp te bëgg góor nag xaw ma loo koy xoolee danga am boroom nag bi daa mel allo ku ku la yëgal damaa xewul xewuma ay yow mi ay yow yow yaa raw xorom ci cin de ah vraiment génn nga sa néeg. ça va. man ça va alhamdulilah oui. c'est sûr. pourquoi tu me poses cette question. ah Khalil kat moo ma ne. Khalil. lu mu la oh ma dara dafa ma ne rek euh, tu te sens pas bien naa hein, la parce que tu traverses une mauvaise passe. li ngay dund metti na ndax bépp jigéen mérito na am chance de doon oh cher moi ce que ça fait s'il te plaît que ëmb sa doom di partager avec moom benn lien mère enfant ngay tëdd ak moom nelaw di koy bouger.

ماما ملكو ما كايتش او تفمنى غفوت ناسا ناسا فاهم سو بي كي جون جويا اللي بيحطوا عبريد انا صندي لك نبقى جويا مولا منو في حلو لي جويا ناسا نجيب ندو ماتن سنة عدنا teranga bu sun boro mën ti jox bu dom moko dakh papa papa ko defo ma sa jangal di wax munima ñaan bu nangu mo sonal boroom kenn saa dafay dem jàngi France awa Cheikh kenn saa bëggatul dem

situation bii de xam naa ni metti na ko te waxuma ko parce que dafa diiñ loolu moo tax yow mooy sa jëkkër mu lay soutenir te xaw na la loolu dina wàññi mettit bi ci yow ndax xel bi nga doon yëpp yëpp dina ko wàññi mas na ngay dund metti na salaamaaleykum. maaleykum salaam na ngeen ngi sant Thiam. bi Thiam. ñu ngi ziar bu na ngeen def. salaamaaleykum. waaw naa leen maa yëg si kaw faa mu xaw a feebar. eh ana ngay daw jataay bi dangaa foog ñu bokkoo ci. cest anak dire ana sa soxna yi euh, joojoom yaram bi dafa xaw a sutante te dafa génn kii dafa dafa xaw a kii ñu ngi tane dama gis sa ëtt bi de ah, du dara fi jaabate waaye gisuma ko maa benn avant koy néegu lii laa fan la ma mën fa jaar vite fait ruube ko fële la Layla de du toog moom ndox rek lay def moo tax wërsëgam nii la koy rombee fiiw te malaise sax ñëw na fi nga ne docteur malaise ñëw na fi di ko seet waaye gis ko man daal Layla jaaxal naa billaay yow xale bi triste ndeysaan oh Layla Thiam de ëtt baabel bii ëttu baayam la xam naa ni dafa nekk ci liggéey rek walla mu am ci lu mu nekk moo tax mu gëj ci ëtt bi mën nañoo tàmbali liñ fi dajale mm-hmm. Bambi mam Bambi eh papa man de bu dee àdduna am na lu ma jàngalul yaay faama mi jàngal na ma ko moo di woy ci kàddu kilifa ba tax na pare naa pour sëy ak Ibnu Jaam alhamdulilah ah, lii bettuma woon ndax mu war a ànd nag dañuy ànd yal na yàlla barkeel nag <coughs> excusez-moi. Parangen. quel pare Ok. Quel ok kenn laaj ma woon sama avis ma comme pas ma je ko le prince héritier de Ndiouga Thiam jabar tay. takul jabar Bambi. Chidempa. Najaleja bodam rajula